maa ngi tudd Ahmadou Bamba Sall ñun dañoo organiser benn camp de vacances bi nga xam ni moom lañ koy woowee Bawal Digital Kids voilà donc daaw ci heure bi lañ ko defoon donc ren moo doonoon suñ deuxième édition bi nga xam ni dañuy tàggat ay xale ci wàllu numérique ci wàllu environnement ak ci wàllu participation citoyenne donc dañoo regroupé vingt cinq enfants yi nga xam ni dañ leen di tàggat durant une semaine ci wàllu woowu. donc dañoo choisir les enfants à l'ère numérique parce que dañoo xool ne àdduna fi mu toll xarala yu yees yi moo moom moo taxaw. si loolu ñu bëgg a teel xale yi ci xarala yi teel leen a former si numérique ba li nga xam ne mooy dérive yi nga xam ne mooy am si internet du leen dal donc ñu teel leen a conscientiser teel leen a former sur numérique ba nga xam ni dinañ am xalaat bu baax ci internet xam am xalaat bu baax aussi sur le web aussi. Euh, dañoo am benn programme boo xam ne programme bu large la donc programme bi dañ ko subdiviser en quatre grandes parties donc am na volet boo xam ne volet éducatif la mooy wàll boo xam ne dañu jàng ak jàngale. donc dina am beneen wàll boo xam ne ay visite la ñuy def ak site touristique yi nga xam ne moo nekk ci dëkk Diourbel moom la dem wan ko xale yi wan lenn lu ne lan lay jariñ ñu wan ko xale yi donc am na beneen wàll boo xam divertissement la parce que xale boo koy jàngal bu amul yenn fooy aussi duñ concentré moo tax am na beneen wàll boo xam divertissement la ak activité ludique donc am na beneen aussi participation citoyenne aussi yu ñuy def yoo xam ni ci wàllu woowu la bokk ak dernière partie bi muy activité physique ak activité sportive yi nga xam ni dina leen tàggat seen yaram ci ci lépp lu ñuy def yor nga xale mu def C1 ba CM2 nekk Diourbel am 10 ba 15 ans donc ñu ngi lay woo nga ñëw indi sa xale ñëw boole ko ci camp de bi nga xam ni dina leen permettre ñu am activité yu ñu def durant les vacances. man maa ngi tuddu nday Jëmm Gueye di yëngoo euh, ci wàllum tàggat yaram ci wàllum sportif plus particulièrement ci wàllum athlétisme donc euh, ñu bokk ci ñi nga xamante ni ñooy euh, organiser li nga xamante ni moo di camp de bi tàggat ndaw yi ci wàllum informatique donc mu nekk lu am solo fii ci pour ndawu Jurbel yi gën leen a yaatal seen xam-xam ci wàllum informatique ndax gis nañ ni yooyu ñooy nekk li nga xamante ni mooy euh, métier yi euh, ëllëg yi donc euh, di li ma ciy sànni mooy rek di ñaax wayjur yi pour ñu indi seen doom yi ñu mën leen a tàggat mën leen a wan yoon wax leen exactement fan la ñuy teg seen tànk pour li nga xamante ni moo di wàllum internet ak informatique donc di woo ñëpp di leen ci ñaax rek ak ci wàllum tàggat yaram. ma maa bokk si fondateur euh, camp de vacances bii nii ñu def fii Diourbel di former xale yu age de dix à quinze ans euh, ñuy def cm ba cm de waaw bon camp nag mu ngi ñu ngi koy ñu ngi koy commencé daaw année deux mille vingt si Covid bi parce que dañoo gisoon ne xale yi. am ñu woon daal li ñuy def vacances fii nii après ñu xoolee ne seen année scolaire euh, dafa dese woon baax ñu jël leen nag formé leen si wàllum numérique maanaam informatique ren nag mooy deuxième édition bi bon ñu ngi lancé bépp appel di wax képp ku am sa doom rek bu nekk sa biir kër boo xam ne dafa dal si vacances yi euh, soo ko mënee indi mu participer fii xam xale yi dañuy jàng fii nii. ñoom dañuy jàng neuf mois après vacances duñ def dara bon te xale yi tamit duñ jàng la plupart duñ jàng informatique seen bi seen seen école. mais heureusement sax léegi ñu ngi koy commencé installé si école mais am na plupart des écoles yoo xam ne ñoom du ñu def informatique léegi moo tax dañ a wan base informatique wala yenn affaires yoo xam euh, informatique pour mun leen former avant ñuy yegg si benn benn niveau bi. je m'appelle Léontine Léontine Dalmeda je suis chargée des activités manuelles pour les enfants euh, l'activité manuelle moom dafay participer sur. Euh, l'intelligence des enfants pour euh, booster leen ñuy xalaat di créer booster seen créativité pour les pousser à beaucoup plus utiliser seen loxo yi si lu am solo que plutôt sur juste ay fo affaire yooyu noonu parce que ci fo tu peux créer des choses yoo xamante ne qui sont importantes parce que man depuis toute petite j'ai participé à beaucoup de colonies de vacances beaucoup de patronage et tout ça donc ça a un peu Euh, mon esprit aujourd'hui ba tax mu may dimbali si yenn yu bëri yu may def donc ci ci loolu noonu la ñu jóg ba tax ñu bëgg ñu insérer ci activité manuelle yi pour dimbali xale yi aussi ñu mën a kii wu aussi loolu noonu.